asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen baalu wax te di leen bal àq di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci suñu senegal gii man nag je ne suis pas média ndax lu am fulla am fayda wala sama liggéey rek mooy tax ma génn ci média dafa fekk ne nag lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole sama deret moo yëngatu ndax fan yëpp coow yi bari na wax yi bari na loolu duma ci dellu man sama doom rek lay waxal parce que gis naa ne macha allah mature nga am nga fit am nga fulla am nga fayda position bi nga xam ne moom nga jël nag waali ànd naa ci ak yow à 200 pour cent te xam naa ne sa baay yëpp ànd nañ ci ak yow à 200 pour cent fu ñu ko war a waxee ak luñ ci war a dox barke alxuraanul karim man mii sa baay may jiitu nga topp sama ginnaaw ñu tox ko wax ko nag jusqu'au fin fond du monde. bu ko defee nit ñi bàyyi la yàbbi la nga liggéey sa liggéey comme il se doit yàlla mooy def lu ko neex fu ko neex ca ko ko neex ku yóbbu rek nangu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala di courage mon frère Wally muñ yàggul barke Seydina Muhammad yaa baax yaay baafaal yaa ñàkki ñaan yaa social yaa yor xor bu rafet yaa yiw waaye tamit li li li toppoon say sa waajur mu am fulla ne am fulla ne fi garde ko ba jóge fi boo yeboo rek ngar daaju ko téye ko bul bul daw xooqatal de <laughs> non bul daw xooqatal bul daw tiital xanaa da ngaa dof dangay ngay fuul yow askan bi dañ la bëgg àdduna dañ la bëgg il faut il faut da ngaa dof la ma la waxuloon soogi est-ce yow yow foo man nee naa la foo jaar xaj mbaw la juróom fukki bukki ñu ngi topp sa gannaaw foo jaar xaj mbaw la xay Sénégal loolu la may raam xamuloo ma may dox ngay damm sama tànk kenn ñemeetu te def dara ah boo yóbboo pare ko de Sénégal dañuy xoqatal nit dangay dem ñu ne doo dem dañuy gës benn kàmb bu xóot pour yow mi nga xam ne yaa leen di bégal da ngay jóg kenn du la lijjanti kenn du la toppatoo ndax amagoo dara boo commencé jóg nga xeeñ nit ñu bon ñi sa dem ñu commencé di la fexel commencé di la teg n'importe quoi ah nga am ay doom am njaboot hmm. mais mais mais mais mais mais c'est n'importe quoi alors ban dëkk la ñu nekk ñun foo xaj mbaw la téye ko rek de te bu la xoqatal yóbbu bul daw yooyu bàyyi faal laa bàyyi faal laa wax yomb na waaye jëfe kaa jafe barki ñoom yonent bi te yaa ngi koy jëfe xapil